hallo asalaamualeykum jàmm ngeenam alhamdulilah tabaarikàlla ma ne ma doon def vidéo right now about ñii nii ak suma xalaat ñoom ak askan bi boo incha naa ko def YouTube su fekkee ne vidéo bi dinaa ko mën a download because maa ne woon vidéo bi du gudd far vidéo bi gudd you know but incha allah dinaa ko download. so guys man lu ma lu ma xalaat si ñii mooy ñun askan bi suñ naa fekk ak soxot gi nga xam ne rek moom lay xeexat yi nii yëpp. ndax ñii defuñ lu dul ñëw di wut donation te loolu bitim réew fii sax day nit ñi fañ koy def ñi nga xam ne day laagawuñ defuñ dara fa ñuy léegoolee wut donation buñ xamee business idea wala dara man xam naa xarit boo xam ne baayam tubaab la yaayam mooy nit ku ñuul mu ngi dëkk fii doomagam jëmm di liggéey xamee jëkkatam xamee doomam waaye dafa xamee idea because liggéey bu mu doon def mooy liggéey bu ñuy tabaxee ay kaas ak ay ay ay ay poti fleur yi noonu di ko tabax si si ban noonu moo la doon liggéey ak kansul bi fii léegi ba mu fa yàggee di liggéey ay xat mu bugg a commencé compagnie boppam di def loolu di ko jàngal nit ñi te xamut xaalis xaritam mi ne ko goo foon mi soo ko créétee mooy maanaam nga créé ñaan xaalis di yónnee nit ñi link bi ñu di dugal xaalis bi su ko defee nga mën a defaral sa bopp loolu mu créé GoFundMe bi xaritam yi jël GoFundMe bi kenn ku ne def la nga man ñu séddoo ko Facebook séddoo ko fu ne ba jàmbur yi sax di ko donné ba mujj xam ci xaalis bu bu bu xëpp lu mu soxla woon mu hubbi bitik hubbi compagnie bu noonu di ko def ay xat léegi employé ay nit man sa waxoon na ma ne su ma buggee ma dem jàng li ñu noo liggéey muy def noonu bitim réew fii wala even Afrique tout nit ñi even suñ defee vidéo sax di wax de nit ñi leen di seetaan dañ leen di donné di leen support ndax fa ñu xalaat ne kii mu may bégal wala maa ngi koy déglu waxam ji di jël énergie ak time am kon war naa koo support waaye bi ko ñun askan bi dañ soxot ta bon moo tax ngeen di dem di donné maa si aadama yi nga xam ne fa ñuy saaga nit ñi ndey ak a toroxal jigéen a toroxal bi bi ko ñoom seen bopp duhuñ jigéen duhuñ góor duhuñ te ku wax ñu saaga la ndey te ñoom seen bopp seen xaduna ak fa ñuy mujjee ak seen jikko ji da ngeen ko gis xam ngeen ko bon ngeen di continuer di ko promote aka di ko donate aka dem ci ay Youssou Ndour ak ay Wally Seck ak xew euh, beneen nit kuy wéy ku ne for exemple wala nit ko xam xew ku ne ngeen dem fa di maye mel ni ngeen a baax te fekk maye bi yëpp féeg la bu ko su fekkoon ne baax na baax moo tax ngeen di ko def yéen waa askan bi nu ko noon du ngeen ne di nga xam ne fa ñëw di wut donation kii moom ci boppam dimbale nit moo tax mu laago kii magam la oto war na tampon mu bi max magam oto tampon ko moom moo tax mu amee benn tànk xol bu baax ak set moo tax mu benn tànk lu xamul nag mooy xol bu baax ak set bi nga xam ne moo ko indi benn tànk bii askan bi xamuñ loolu xamuñ sax genn wàlle loolu askan bi ñoom ñu bëri xew fañ fay dem te fekk bugguñ borom xew bi yaa ngi dégg li ma lay wax askan bi ñoom ñu bëri fa ñuy dem yu sundu wala waali sekk te fekk faale huñ wu wala waali sekk lañ koy may faale huñ ko jos bugg gis leen ma moo tax ñu di ko ko may askan bi ñoom ñu bëri fa ñuy jënd dara sax te fekk soxlawuñ lañ jënd fañ koy def pour gis leen ma for exemple dara fay xew ñëpp di ko jënd tax nga jënd ko te fekk faalewoo dara loola buggoo ko waaye nga koy jënd parce que ñëpp a koy jënd man ami du ma def loolu su dara xewee ma neexul du ma ko jënd may seetaan ñëpp di ko jënd ba mu xewee ba leneen xew lu ma neex wala ma sol leneen lu yàgg la ma neex waaye mbala su ma xamul njëgam waaye askan bi fañ miin jënd luñ xamul njëgam def luñ waxta def xam xam xaalis jënd dara wala jos jënd dara loo xam ne bëgguñ ko waaye bi ko nit ñi jënd nañ ko suñ ko jëndul mooy ne ñoom duuñ nit wala ñoom xamuñ façon askan bi bi ko ñu ngi bëri naa feq yi soxot moo tax ñu jël ñii di leen xas gis nga vidéo yu bon ñi ngeen defal ñii ñii bu ñàkkee fayda seen sëy bi dana si doxee am problème bu dul léegi sax fay am problème si kanam parce que yéen a ngi wax kii ne ko kii fa la takk bi ko nga amee benn tànk soo amutoon benn tànk du la takk yéen a soxot ta dax taxme ji koy jaam jéeg léegi ngeen a bëgg kii commencé di xool jëkkatam di ko baqeel lu jëkkatam wax mu mer fu jëkkatam wicc wicc rek mu tiit jaaxle di xool dafa ko nopp o not loolu rek dana tax ba problème xam su suñuy xamul fayda waaye ñi dee buñ jàngee ci man Ami Diop kenn du man si ñoom dara ndax ñoom ñaar xam nañ ñoom ñaar mën nañoo ngëbante mën nañoo jàppante waaye man mi nga xam ne man kenn rek la ak suma doom yi xat yi yépp ne ci internet bi di wax ci vidéo yi pour ñu am jàmm ngeen di ma xeex di ma saaga di ma buli te ba tey ma gëm suma bopp continuer suma liggéey bi ndax xam naa ne li may wax loolu lañ soxla suñ seetee si man wala ñeneen nit ñu gëm seen bopp ci askan bi yéen ñii duñ leen faale askan bi nga xam ne faale huñ laago fañ bañ laago te xeeb laago kii ñëw di wan nit ñi ne nit su xamee laago boo xam ne yàllaa ko ko nattoo warta tax ngeen di ko tuutil kii ñëw tam moom tam di leen wan ne su yaay de lu tuuti tuuti mu ma jut te respect naa ko loof naa ko te suma xarit la di leen jàngal ne jigéen waroo ko xeeb surtout bu la juree surtout yéen góor ñu bari ci askan bi seen bugg ndey gi yëpp féeg la ngeen koy def pour jigéen ñi ñaanal leen rek pour ngeen xam na bu baax ba bugg leen ndey te bala nga xam ne askan bi bugguñ ndey nga gis saaga ndey yi ñuy def jigéen bi war a jàngee si ñaar ñii kii yaayam di comédien kii yaayam di jigéen joo xam ne yàlla fa ko nattu mu tuuti waaye fa rafet te gëm boppam te baax jigéen ji lu baax la woon nañu si internet bi ak gëm boppam ak baax jigéen ji moom rek fañ ko woon a donné dimbale ko support ko ndax comédien la muy def ay vidéo nit ñi ree ak happy koo fay nit mu war mu waroon ngeen donné ko moom yaayam rek ngeen dimbale ko donné ko xaalis defu leen loolu ngeen nekk di ko xas léegi kii su fekkee ne fa ànd ak jabaram di wut donation pour jabaram comme gars yi commencé business wala commencé dara xam-xaduna di jënd di jaay wala dara nit ñi dimbale leen support loolu jaru xaste ndax kii li ko dal mënoon naa toog ragal toog rus toog làqu waaye fa ñëw di wan nit ñu ne bu la yàlla joxee nattu nga nga xam laago wala beneen nattu muñ ko du yow kenn léegi moom lu mu di jàngal askan bi ne boo xamee nattu mën ngaa gëm sa bopp ba tey loolu dara jotu la loolu rek kenn mënu ko koo fay ndax askan bi gëmuñ seen bopp moo war a seen xeesal yéeg yépp te moom maa ngi koy ñaan sa xeesal bu mu tàmbal ni na ko ba ñu laayam bi fa rafet ba mu tàmbalee xees na meloon na continuer noonu di lekk-lekk yu baax si yaram di diwoo ay karité yeeg diw yu baax si yaram yi du tere xat bu ne fay gën a rafet rek ba mel ni sama maas yi niñ mel xeesal taxut a rafet te xeesal si gëma di sa bopp la bokk te xeesal fay indi feebar te fay yàq sa der bi te yow royal model nga si askan bi gune yu bari fa ñuy xool ci yow nga di leen jàngal gëm sa bopp kon nag bul yàq lool boole ci xeesal bu ko yàq waaye ñii li ngeen leen di bon na ñii li ngeen leen di tuutalee bon na yéen a soxot bon xam na benn góor buy wax banaan waaw kii ma gis gel bi ñëw taxaw di wax ak kanamam gu nangam kii moo dàq seen baay mënu leen a xam jabar ju dàq kii yéen ñu bari ngeen koo xañaanee jëkkatam kii ni rafetee kii jigéen ñu bëree ngi dox ak seen ñaari tànk yi moo leen dàq fuufi junniy yoon te kii fa gëm boppam moo tax mu jël jëkkatam ji sëy moom kii xóor na ma ne dëkk jëkkatam ji mu jël nii di sëy ak moom nii xam na ñoo xam ne ñoo ëpp jëkkatam xaalis te te danañ ko topp te te danguwut te kii su ko neexoon mu nekk si internet bi góor ñi di ko bind muy wax ak ñoom ci ron di def yi fi saay-saay ka def lu ne instead of mu dem sëy waaye mu ngi cuus gune góor gi xamul dara mu sëy ak moom ngir ne fa ko loof te yërëm ko te loof ko te apprécier ko te ko kii nag lu xamut mooy askan bi fay soxot te naafeq loolu laa bëgg mu xam ko war naa xam loolu bor fa ko war a nangu yéen ñu bëri ngeen ne si askan bi te nanguwu leen seen jikko ji askan bi fay soxot te naafeq te bañ jigéen moo tax nga gis nga xas yu bon yi nga koy xas naa tànkam bi bu daggoon ba xàgg ci nangam taanam wi sax di nga waxi xaj yooyu kii ñu di ko xas xamul ñu ko waxut ñuy wax ne naa fay jooy ak nangam góor gu baax fay jooy yéen fañ leen jàngal góor du jooy góor nangam foo fekk kuy wax loolu ku ne fa góor gi nekk góor gu soxot dëgër bopp góor fay jooy su waree jooy am teel ñu di surtout bu fekkee ne li ko dal ni baaxul wala li dal nit ki nii baaxul góor fay xamee xol comme nit góor duur concret li jël seen xol bi dóor leen ba ngeen torox bi ngeen di xeegu ne abuse leen yéen ñu bëri ñu sexual abuse leen wala ñu jos dóor leen toroxal seen ndey yi toroxal leen muy góor wala jigéen ci askan bii sexual abuse la làmbatu la wala toroxal la ba pare nga nekk xale soo sebenee lal sax ñu dóor la ba nga waaj a dee soo daanee kaas bi sax ñu dóor la ba nga waaj a dee ndi ngir seeni waram fañ xamee naqat naqati sëy bu bon wala naqati dóor wala sexual abuse wala euh, ñàkk xaalis wala beneen façon ngi naqat boo xam moom la ki lay dóor bu dee sa waajur wala ku lay jàngal la ku ne ñu dóor la toroxal la ba pare ngay jooy ñu ne la soto bul jooy tegal la si jàngal na nga téye sa xol bi téye mitit bul jooy moo tax ngeen mel nii ronkoñ ma wax la ronkoñu naqat bu génnee loolu poison la fa war a génn demal nga risaay ko jàng boo xamul xaduna yàlla lu mu def moo ko xam naqat boo boo ko xamee boo gisee ngay jooy jooy bi poison la fa war a génn tuuru te soo ko forcé pour mu toog sa biir yaram bi fa lay feebar laaj ko ku la neex léegi nag bi ko fañ leen train ba ngeen mel ni ay ay rebelle yu si butu moo tax ngeen soxot te xamee xoli concret moo tax ngeen di wax ne bu kenn jooy surtout góor léegi li ma jaaxal mooy jigéen jigéen wax ne moo war a jooy lu jigéen jooy jooy ngeen xeeb yéen ñu bëri ngeen a loof jigéen ji jooy jos bi ko ngeen di xalaat ne jigéen ji maa ngi koy mérital ba mu jooy loolu mooy ne man rek la yaakaar wala man su ma xamul du xam jàmm wala man may xadu soo xaar ma gën a di ko gën a jooyloo mu gën a torox kon léegi lu tax ngeen di wax ne góor warta jooy bi ko jigéen ji moo war a jooy su jooy du tax xam jàmm anyway xam na yéen ñi koy xas naan fay jooy ak lu ne ngeen di ko def su ñuy ñàkkee fayda nañ nangu yéen ngeen di press leen because yéen ngeen a soxor Adamo for example instead mu ne di kaa ñi di leen saaga ndey yéen ñi like vidéo Adamo boobu yëpp da ngeen ci xam bàkkaar dem leen dindi vidéo Adamo boobu noonu nga xam ne mu nga saaga ñii dem leen dindi like ba ngeen fa def yëpp da ngeen ci xam bàkkaar bu bon ñii buñ tëddee guddi duñ nelaw suñ stressé da ngeen xamee ñi ñii defuñ leen dara fay ñëw di ñaan ku man jox ku mënul ba suñ ñaanee nga dimbale leen ñu commencé business di jënd di def leneen ak leneen nit ñi jënd si ñoom ñu ñoom ñu développe seen famille yelloo nañ loolu ndax fay nekk di bégal nit ñi surtout jigéen jii te baax ak yaru ak bugg magam moo ko indi laago bi askan bi fa bëri naa féq ak soxot ak gis loo war a wax doo ko wax moo tax ngeen di kaalu ñàkk fayda yéen li ngeen war a kaa ci askan bi mooy sëy yu bon yeeg lekk yu bon si yaram yeeg cigarette sax fay indi problème sàngara drogue yu bon yi nit ñuy def léegi yëpp baaxul ci wér yaram baaxul ci askan bi nit ñi gëmul seen bopp di xalak seen bopp di xalak waa askan bi nguur yu bon yeeg yeneen ak yeneen yu bon tëddoo gune yeeg dóor gune yu bon yu bon yu nekk si askan ngeen war koo kaa ngeen di kaalu ñàkk